بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله mbokk mi day laaj di wax ne lii di gerte ak mboq ak dugub lu ci ne lan lay mat ba war ci tontu li moo di ne bu dee gerte ñetti barigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom lay mat asaka bu dee dugub juróom ñaari barigo ak genn wàll lay mat asaka bu dee mboq juróom benn barigo lay mat asaka war ci wasalaamu aleykum